Seck génne na albumam bi di I Wanna Be Free mhm, mhm. donte nag euh, bi muy am muy période décès wu sëram bi voilà malgré euh, décès wu sëram bi di moom Momy Dany Dieye moom Wally Seck finalement génne na albumam bi mu tuddee I Wanna Be Free euh, muy album international bi nga xam ne moom la doon waaj ay weeri weer mu waroon génn tey ji le 6 octobre finalement mhm. album bi disponible na boobu la mbir nag Euh, Omaro moom moo génnoon aussi jël ay euh, benn vidéo quand def ko ci ndax Omaro gis nañu diggante moog Wally parce que dem nañ sax ba jàpp ni moom mooy porte parole am def benn vidéo di xam ne ni que. Euh, vidéo bi euh, di euh, wala bokk album Wally Seck bii nga xam ne moom mooy album international bi nga xam ne ñëpp dañ ko yàggoon xaar mm-hmm. finalement dina génn malgré que ki nga xam ne moom mooy Momy Dany Guèye génn àdduna li waral sorti album boobu du lenn lu dul que ni ñoom dañu amoon ay engagement yi nga xam ne dañ ko amoon ak yenn ci ay partenaires yi nga xam ne aussi dañu amoon ak ñoom contrat donc pour honorer contrat yooyu noonu Euh, tax na aussi ñu war a mun a génne album bi nga xam ne ñëpp dañ ko doon xaar te mbir yi dafa tegu woon rek ci contrat. Mhm. moo taxoon ñu war a génnee li nga xam ne moom mooy album bi nga xam ne génn na tey waaye bi muy génn yëpp fekk fa woon Wally Seck parce que ci période yooyu noonu la Wally Seck quitté fi nga xam ne moom mooy euh, Paris pour mën a ñëw fii nga xam ne moom mooy Dakar te ñu ngi xam ne ni ka sax ni Wally Seck euh, yegsi na mi ngi biir Dakar. Ah, même mu fekkee voilà même mu fekkee démb enterrement bi démb. fekkewu ko donc yi Seck démb euh, ñibbisi na démb mi ngi Sénégal waaye bi euh, mbir mi di génn di album bi nga xam ne moom mooy album international bi nga xam ne actuellement génn te nit ñi ñu ngi commencé di ko déglu bu baax a baax fekk ko fii fekk ko Paris moom Wally Seck ci jamono googu la jël vol. Hmm. ñëw euh, dakaar waaye ñoom Omaro ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy équipe bu Faramarine musique bi ñu ngi fa nekk quand euh, di euh, woyal liggéey bi ngir rek honorer contrat yi nga xam ne moom la am ak ñenn partenaires yi nga xam ne aussi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ko ñu ngi ko amoon vraiment pour mun a hmm. ñoŋal liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñu def ci album bi moom nag. ñu koy félicité ci album bi parce que gis nañu album bi jot nañoo déglu yenn ci ay euh, woy yi nga xam ne génn ci album bi mhm. muy quand mbir moo xam ne toppoon na ko di liggéey bu am solo bi nga xam ne vraiment génnee na ko ba suñu borom mujjee def lii te moom Wally aussi xam nañu digganteem ak euh, Momy mhm. euh, Seck parce que ku dem rek ba tuddee ko doom nit ku nit ku la fonk la quand nit ku mhm. la jege muy magam donc ñu koy ñaanal moom Wally mu am une réussite totale ci album bi nga xam ne génnee na ko nga xam ne liggéey bi ça n'a pas été du tout facile parce que euh, moyens yu bëri la ci def quand même mm-hmm. voilà ak investissement bu dëgër dëgër am ay yéen ci ay featuring yi nga xam ne def na ko ku ci mel ni Chris Brown ak yéen ci ay artistes yi nga xam ni ñu ngi leen di dégg bu baax a baax ci Amérique euh, donc bu mbir mi demee nii rek euh, ñu war a mun a comprendre que ni bon li ko war a du leen lu dul ay contrat yi ñu mm. am aussi yu ñu war a honorer parce que tubaab moom euh, këyit la xam quand mais li am solo mm. rek mooy moom Wally Seck bàyyi na album bi à l'international Euh, ñibbi si euh, Sénégal ngir rek euh, mën a nekk ci li nga xam ne rek moom mooy dëju mag bi nga xam ne aussi am na ko donc lu luñ ci mën a saluer rek mooy la fekk même li mbir mi di tàng-tàng jóge na fi nga xam ne rek moom mooy France le même jour mm. pour mën a ñëw taxawu magam ji Euh, bàyyi ñi nga xam ne rek ñoom ñoo safam ngir ñu mën a liggéey liggéey bi ñoŋal ko daal di euh, continuer wala boog daal di honorer contrat boobee nga xam ni amoon nañ ko aussi muy album bi nga xam ne bi ñu ko dalee annoncé yàgg na mu génn tey finalement. di ko ñaanal xolu muñ moom tamit waali donc euh, sa papa génn àdduna. Mhm. deux ans à peine sa sa mag toppaat ci mhm. wax dëgg fa yàlla. Mm. man man man man man Wally ah. moom moom laa ji moom laa ji gën a xalaat quand même parce que xam nga jaaga aussi maa ngi koy xalaat parce que ku ne xam na ni mbir mi dafa métti tey mhm. eh, maa ngi maa ngi gis tey benn waay muy commenté naan di ñaan yàlla ne moom yàlla na yàlla jiitu yaayam ci àllaaxira parce que moom nee na moom tey su dundee tey ba gis eh, yaayam njëkk ko génne génn àdduna moom douleur boobu du ko supporter comme pour diir que ni euh, mbir la bu doy waar ci benn commentaire bu ma gis donc pour won la que ni tey day métti rek parfois ni ngay gisee waajur bu bu bu bu doomam génne ak ni muy sonnee ni muy méttee mhm. loolu loolu loolu loolu dafa métti léegi da ngay gis ni parfois li yaay yi di dund parfois ci métti yow également da ngay bëgg ñu dund dund dund ba yow lépp li nga bëgg aussi donc nga defandoo ko ak ñoom mm. wala lépp loo xam ne bëgg nga leen ko defal ngeen defal moo tax man jaaga booba tey maa ngi koy xalaat ci mbir mi parce que mm. nga ñàkk sa sa borom kër voilà un an un, mm. un an et demi wala bokk deux, deux ans. ans après sa taaw bu jigéen aussi dem muy mbir mu doy waar ak li ci topp aussi mu coow li nga mm. xam ne démb rek maa ngi koy wax day awa li li tax nag mu métti mooy jafe-jafe yi ngay am ak parfois aussi yenn coow yi nga xam ne aussi dañ koy dégg autour de say doom parfois ci polémique yi ñuy gis gis mm-hmm. nga li fi mm-hmm. mujjee ci mariage Aline Seck mais également parfois Wally ak ay mbiram ak coow yi mm-hmm. nga xam ne dañ koy nemmeeku voilà muy mbir mu doy waar boo xamante ne parfois boo amul euh, benn mental bu fort rek vraiment day xaw a métti mais beneen bi aussi muy Wally mi nga xam ne seen un bi nga xam ne moom ci famille gi moom lañ fa gën a xam. Mhm. parfois sax day dem ba leen di xamal ni que bu leen tiit man maay seen papa daf koy wax ay raxam donc bu demee moom également. Euh, mbir mi dal ko mu perte euh, ki nga xam ne moom mooy coon sekk mi nga xam ne ba tey daf koy jooy mhm. tey également mu perte ki nga xam ne moom mooy moom mi moom waali dañ koy ñaanal bu baax a baax mu gën a euh, voilà suñ borom gën koo kàttanal ba mu gën a mun a surmonter épreuve yi nga xam ne bu dalee sa kaw rek mhm. mbir yi day métti bu mhm. baax a baax voilà. <laughs> alors daa mel foofu lay yem. voilà foofu lay yem ah foofu foofu yem même bu fekkoon amoon na yeneen mais li ci gënoon fës ak mooy li nga xam ne rek moom mooy euh, mbir mi nga xam ne moom la ñu nemmeeku fi nga xam ne rek moom mooy euh, kër Bougane Gueye